siil di a dem a tax a dem moytu Gambia mbokk yi wari wa dem na këng waxi mag dem na ndaasaay lu waaye doon jaay nag tey lay lamb ñeenaal ne fii lay xewee fii nii nga xam ne Brésil Cheikh Omar Ndiakaan ñoo fi def liggéey bi am solo bi nga xamante ni ñu ngi koy def fële ci diwaanu Kanifing State soo fa demee lépp li nga xamante ni rek di nga ko ut ci bloodline rek di nga ko fa fekk waaye naka ngay def pour jokkoo ak waa Brésil Cheikh Omar Ndiakaan da ngay daal di tëgg ci ndomba yi ma lay bëgg a jox muy 7461 733 74 61 733 wala nga call seen kii wisal ndamba bi nga xamante ni mu ngi fii mën nga leen di call si 37 144 53 37 144 53 mbokk yi nee naa leen ne fii la mburu mi di xoyam xoyamee nee naa leen lépp ñëpp lu nekk ku nekk ci kenn nag moo dut xam mooy ki nga xamante ni dafa téye loxoom yi ay ca sama gaay jaay ngeen jëf ca sama gaay yi wa dem na kan waxi mag dem dañ tàlli ah, lakk jëm na ko ni mbagg war na mbaam li waaye doon jaay day lamb rek ah, mbaamu leer waaye ku jëm sa daxaar nag ba ci say baaraam nee ne saa ñoo ay ñi nga xamante ñooy jiiti ci xay waaye ñi nga xamante ni ñoom ah, bi nga xamante ni tey moom la ñëpp war a taxawee wax dëgg neex yàlla mu nekk liggéey bu am solo bi nga ni tey guuba ñu ngi waaye di tamit euh, du ñu def dara tamit lépp li nga xamante ni xew na ci euh, nee naa leen ne guuba ñooy ndaanaan ne ndaanaan waaye guuba yi nga xamante ne ne tey ñoom ñooy xool lépp li nga xamante ne tey xoolal fu dara nekkul ñu di dugg fa def fa dara kon ñooñu laa fas yéene eh, jàmmaarloo ak ñoom fas yéene ànd ak ñoom si yenn waxtaan yi nga xamante ne tey war nañ ko mën a sekk tey fi nga xamante ne tey mooy si bi kon gars yi nee naa leen du yom benn yoon nee naa li nga xamante ni xew na fi rek eh, dinaa leen ko jox kon gars yi dama leen di bàyyi ngeen ànd man ak yéen ak sama caméraman bu ñawal bi ndeysaan di jinney caméraman yi nee naa leen ne Baobab TV mooy rajo bi télé bi ngeen xamante da ngeen ko doon xaar pour mu ñëw mottali li nga xamante mooy seen yaakaar kon Baobab TV ak sunu jur programme bi nga xamante ni tey saa su nekk rek euh, dina leen koy asil kon gars yi topp leen ma ñu daal di dugg ma dem seeti guuba tey lan leen ma andil cey guuba ndaanaan yaa ngoog mu ne ko ndeysaan asalaamaaleykum comme ni ma leen ko waxee rek mbokk yi eh, nee naa leen eh, lépp li nga xamante ni xew na fi nga xamante ni muy ci Trefia bi rek eh, su ko defee rek dina leen ko daal di indil waaye tamit nee naa leen damay ñëw ànd ak ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy waa Guuba waaye fas yéene waxtaan ak ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy waa Guuba ci li nga xamante ni tey mooy taxawaay taxawaay lan bi foire bi kon ñu jàkkaarloo ki nga xamante ni tey moom mooy Seydi Aliou Lo Aliou ñu ngi lay ziar bu baax a baax waaw sëñ daam ñun laay fay ñu ngi nuyu waa Baoba TV di nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñëw nañ fii si GCC ay trade fair bi yëpp nga xam ne ñu ngi ko defee fii si bourse bi nekk si côté ten table muy GCC ay euh, trade fair ground bi mhm. ñu ngi leen naan nuyu bu baax di leen naa ziyaare macha allah mu doon liggéey bu am solo bi nga xamante ni tey euh, Guuba ñu ngi koy def waaye ñu gis tamit euh, Guuba ñëw taxawaay taxawaay bi nga xamante ni taxawaay bu am solo la liggéey Guuba lan la waaw ah, xam nga nit ku nekk si looy liggéey rek dafa am looy oote. Mhm. te li nga xam ne dañ koy oote dafa toll fi nga xam ne su fa tolloo. Mhm. dafay baax pour ñu ah, mhm. fësal ko. si fësal boobu nag moo tax tey ñun ñëpp ñu ñëw fi. wax dëgg yàlla ñëw wane suñu liggéey. asi fi ay xar yi xam ne ku leen gis xam ne xar yu mucc ayib ne xar yi xam ne la wax dëgg yàlla xar leen si kaw xar yi. loolu lañ fi asi tey expose ko. asi fi five box. wax dëgg yàlla koo gis kon nag gën a rafet nga asi wan leen ko nga xam ne ëllëg suñ bëggee xam foo xar yi a xam mhm. tey wax dëgg yàlla guuba su fekkoon ne dañ a ñëw expose ak seen doole mhm. am naa yaakaar ne assistant bi mën mhm. xam la tey fii si euh, guuba euh, taxawoon nañ ko waaye euh, suñ bëggee xam tey ñan ñooy guuba ak association bi tax a jóg waaw guuba si gàttal mooy ne ñetti association ñoo ñëw together mhm. buñ ñëwee ànd bokka liggéey bi mhm. Mhm. wax dëgg la muy benn si association bi nga xam ne man maa ko jiite woon ñu ko doon def sàmm gi association am bi nga xam ne ñu ngi ko professional breeder uh-huh. ku ñëw Mohamed Kanté moo ko jiite woon am si association bi nga xam ne ñu ngi ko Gambia Human Breeder ajaratu Maawa Fall jiite ko ñetti association yi ñoo ñëw together buñ ñëwee together ñu créer association bi nga xam ne mooy Guuba ñu tuddee ko Gam United Breeder Association mhm. suñu ne Gam bi moo tekki Gambia mhm. United mooy ne booloo neen breeder yi mooy yerkat yu si réew mi mhm. def benn association si gàttal lii daal mooy Guuba ngir dañ gis ne kii xëcc fii kii xëcc fële dafay gën a métti waaye suñ ko boolee te mbooloo mooy doole yàlla wax ne barke si mbooloo laa ko def moo tax ñu ñoom ñu booloo euh, kon euh, koy def kon tey euh, si ma la bëggee dégg rek ci li nga xamante ni tey moom mooy waxtaan bi rek kon li ngay daal di wax rek daal di koy wax mooy euh, Gouba den ñëw taxaw taxawaay li nga xamante ni tey maanaam jëmale li nga xamante ni mooy élevage ci kanam waaw loolu mooy taxawaay bi dañ ñëw taxaw taxawaay bi nga xam ne livestock nga xam ne français yi di ko élevage mhm. olof yi ko yaram jur mhm. moom lañ ñëw tey pour yóbbu ko tey si kanama kanam mhm. loolu mooy tànki guuba nga xam ne gis nañ ne kenn mënut a wax réew sa jur gi kenn mënut a wax réew sa mbéy mi ñun ñu nekk si benn fànn bi nga xam ne mooy jur gi muy livestock tey ñun si loolu lañ nekk di liggéey xar yi nga xam ne ñoom lañ fi asi tey mu doon ay xar ne ñu leen naa nga xam ne tey bokk nañ si xar gën si àdduna si wàllu njoolaay si wàllu wet bi muy len bi wàllu diisaay bi muy wéet bi mhm. dekk ne si xar yu si gën a mucc ayib mhm. waaye guuba emu si foofu rek mhm. guuba dafaa yëngatu si fànn yu bëree bëri si wàllu tubasi mi ngi nii nekk suñ kanam yàggatut guuba mi ngi taxaw si wàllu ndaw ñi guuba mi ngi taxaw si wàllu jigéen ñi guuba mi ngi taxaw si doomi ak saison bi naka leen naa dimbalee si seen wàllu wér yarami jur gi moo tax ñu am benn secteur bi nga xam ne vétérinaire yi lañ ko jagleel foog naa ne ay wik si a yomb si ñoom li yóbbu guuba mu ngi taxaw macha allah mu doon liggéey bu am solo bi nga xamante ni tey kon guuba ñu euh, euh, ñeneen euh, ñoo waroon a taxawee maanaam ñi nga xamante ni ñoo yor ndombal tànk yi waroon a taxaw maanaam nit ñi di liggéey ci ñoom ñu leen di fay kon guuba ñoom ñoo ñëw tey pour wan nit ñi naka leen di liggéey waaye naka la ñuy dem ba am am li nga xamante ni tey moom mooy xaalis waaye ñu gis tey guuba taxaw taxawaay bu am solo bi nga xamante ni tey mooy si Tradefia bi waaye exposé exposé bu doy waar bi nga xamante ni tey def neen ko bi bi daal naka la demee. waaw tey buñ gisee ne euh, am nañoo collaboration ak GCCI. Mhm. muy am partnership bi nga xam ne dox na suñu diggante ak ñoom. mooy di jëflante. Mhm. si li nga xam ne ñun ñëpp luy jëmale réew mi si kanam mooy suñu jubluwaay. Mhm. si la gars yi xewle bu ñu xewle ñu ne bëggoon nañ ñu faa gis pour ñu teew fa. moo tax si seen xar yi. la gaa préparation bi sax gàtt waaye terewul na olof dafa ne ku la yëg moo la sonal. te gannaaw ñun suñu xewlee ñoom dañoo ñëw. kon ñoom tam suñu xewlee ñoom tam ñu ñëw jëmal seen bés taaral seen bés dafa am solo si ñun ba pare su boobaa taxawaay bi dina nekk li nga xam ne lu rafet a mhm. moo tax te ñu am fi euh, gétta yi nga xam ne ñëw nañ teew fi mhm. ku ni gétta bu ñu ooyee Sadio Kanji géttaam mhm. ñëw na fi gétta bu ñu ooyee Kër Yahadi ñoom tamit ñëw neen teew fi gétta bu ñu ooyee Cheikh Omar Diegane ñëw na teew fi gétta bi nga xam ne ñu ngi ko ooyee euh, euh, Euh, Belzer Houda mhm. moom tamit ñëw nañ teew fi mhm. ñe euh, juróom yi daal ñoo fi jot a ñëw mhm. asi fi seen xar yi wane liggéey bi nga xam ne moom la waa Guuba nekk di liggéey si turi Guuba si turi Guuba macha allah mu doon liggéey bu am solo bi nga xamante tey euh, Guuba ñu koy def fi nga xamante tey mooy fii si mim réew kon su ma la bëggee dégg rek wala wala tamit leneen li nga xamante ne tey bëgg naa ñu gëntee yaatal maanaam mooy Guuba naka la men tey ak li nga xamante ne tey moom mooy collaboration si yeneen ñu nekk ni muy Gambia waaw Gouba tey collaboration ak yeneen réew yi dafa am doole mhm. di ko da ngay fàttali ne Gouba ñetti association ñoo ko créé mhm. te ñetti association yi am na jéego yi nga xam ne doxoon nañ ko mhm. si ah, suñu région bi français yi di ko sous région bi mooy région bi nag fu association yi emoon fa la Gouba jël commencé yóbbu ko beneen level te soo seetee Sénégal am na ñoo ñoom euh, région am si gannaaw rek jógee neen Ziguinchor demoon atteindre fa cirit feya demoon teewee ji te jógee neen beneen foire bi nga xam ne Tëngéej la Euh, association yu nekk biir Sénégal yëpp guuba mi ngi amaa ñoom euh, lëkkarloo bu am solo mi nga amaa ñoom xarit ya mhm. euh, diggante doomi ndey ak doomi bay mhm. yëpp am nañ ko mhm. ba si seen président bi nga xam ne moo jiite bépp yarkat ci réew mi muy abukan di FENAFO ñoom sax da ngaa xool ne ñu ngi am ak ñoom rapport yu dëgër dëgër noonu la amee si Murtani ki nga xam ne moo jiite Murtani seen yarkat yëpp ñu ko euh, buuna si moom tamit am na ñoom moom rapport bu am am solo rapport bu am doole bi nga xam ne ñu ngey jëflante ñu ngey jokkoo lu war naka la ñooy yóbboo yar jur si ñaari réew yi ñetti réew yi ba ñeenti réew yi yëpp guuba mu ngi si taxaw international bi la am na ñoom ñoom rapport bu am solo mm-hmm. moo tax dañ am diaspora coordinator su ne diaspora coordinator mm-hmm. mooy ki nga xam ne moo jiite West Africa bi fii mm-hmm. français yi di ko ECOWAS euh, anglais ne ECOWAS français yi ne CEDEAO ku ñoo wax ngeñ moom moo ko jiite ñu am ki nga xam ne moo jiite ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew si Amérique ak dëkk yu ko wër suñu ne Amérique ak continent bi mooy lu demee ni Brésil Argentina ay Chili ñoo ñëpp si American euh, continent bi la bokka ku ñëw wax Ndiaye moo ko jiite soo demee Europe ak Asia hmm. ku ñëw wax Cheikh Omar Faye moo ko jiite hmm. moo tax da nga xam ne Gouba dafa suuraale biir réew mi ak biti réew mi réew mi hmm. ah kon mu doon liggéey bu am solo bi nga xamante ni tey Euh, guuba euh, ñu ngi koy def kon euh, lii nag du jàngale lenn rek lu muy jàngale mooy booloo mooy doole xàccandoo di dóorandoor bokk ndey bokk bàyyi mooy tax li nga xamante ni tey bëgg nañ ko def sax mu génn ci mim réew waxuma ne nag na yem fii nii waaye na ba dem ci yeneen i bërëb yi nga xamante ni tey yittiwoo neen ko te war nañoo booloo di bokk ndey di bokk bàyyi waaye tamit ñu gis tamit guuba taxaw taxawaay bu am solo bi nga xamante ni tey ndax guuba tamit ñu ngi yëngu ci li nga xamante ni tey tey ku bëgg a dugg si élevage pour ñu xëcc la pour nga mën a ñëw waaw guuba ñu ngi say yëngatu bu baax a baax moo tax soo xoolee ñu jël benn euh, secteur bi nga xam ne dañ ko jagleel ndaw ñi mhm. luñ si jublu mooy pour ñëmeloo ndaw ñi mhm. soo seetee am amagum nañ fi ñaari ndaw ñi nga xam ne kenn ki dafa jóge woon baag wi mhm. bu ñëwee dugg na si yer jur gi si guuba am na jëflante bi nga xam ne def na ko moom buñ doon dem Ziguinchor am na suñ benn maire nekk euh, maire Ramatoulaye Thiam ñu ànd ak moom dem ba Ziguinchor mhm. mu doom ji xel mi lu si nekk mooy pour dem yooni gannaaw bi di baaguyo bi mhm. waaye da nga xam ne bu ñu waxtaanee doom ji tey alhamdulilah si ndimbali yàlla suñ borom mhm. jaarale ko si guuba dem na ba xelam soppeeku na nangu naa toog fi si réew mi bi ko doomu aadama soo ko ne ko bàyyi lii da nga ko wan ne ko jàppal lii te mun na laa njëriñ wan ko ñu si nekk ba ba mun na naa njëriñ lool lañ ko wan xelam dal si moo tax da nga xam ne noonu defee si jigéen ñi noonu lañ ko defee si ndaw ñi moo tax guuba day teg loxo nit am na si ñi nga xam ne ñun bu ñoo xamante ñoom benn xar sax amun ko mhm. waaye dañ leen ñemeloo ba tey ñee nañi commencé nañ di jënd ay xar kon lii yëpp loo xam ne la xam-xam bu ñu yàlla may pare neen pour yaatal ko pour tasaare ko si turi association bii di Guuba macha mhm. allah kon su ma leen bëggee dégg rek euh, lépp li nga xamante ni tey euh, ñu ngi koy def rek euh, bokk na ci ñu xool te réew mi nu muy doxee ak réew mi nu ñuy daal di dundee ci li nga xamante ni tey moom la ñu nekk wax dëgg neex yàlla mu doon liggéey bu am solo bi nga xamante ni tey comme Guuba ngi koy def waaye tamit guba seen taxawaay tamit lan nga ci yokk ak tamit lan ngay wax ñi nga xamante ni tey mooy suñu mbokk gambien si ak ñi nga xamante ni Mauritanie euh, comme ni nga ko waxee saa su nekk rek euh, booloo mooy doole naka lañ war a mën a def tey ba collaboration bii gën a jëm ca kanam liggéey bi gën a mën a jàll. waaw dañoo oo yarkat rek. Mhm. di wax ne mbooloo mooy doole. Mhm. te lu bëree bëri ñun Gambie ni ñoo ko war mën a defal suñu bopp. waxoon naa ko si bu ñoo joxe département of livestock. mu mhm. ne leen ne société Gambia secteur yu bëri foreigner yi ñoo ko dominé. suñu ne foreigner mooy ñi nga xam ne duñ doomi réew mi. lu bëri luy doxal réew mi ñoom ñoo ko amee. moo tax war na ñun jamono bii ñun doomi réew mi ñu jóg. ameel ngay gis ne Ah, ñu ngee oo ñëpp mm-hmm. koo xam ne yarkan nga rek ñun laa oo mm-hmm. ñu ngee oo stakeholder yi suñu ne stakeholder yi mooy ñi nga xam ne dañ dee mën a dugal seen loxo si luy jëmal mm-hmm. réew mi kanam nguur ngi tam am na ñoo ñoom rapport am na ñoo ñoom collaboration muy ministry of agriculture muy department of livestock ñëpp ñu ngee liggéey ak ñoom si anam bi nga xam ne anam bu rafet la waaye ñu ngee taalal suñu loxo rek di oo ñëpp ne ñëw rek ñu bokk xelaat yi bokk a ni tey euh, koy bu rafet waaye liggéey bi nga xamante ni tey euh, képp ki nga xamante ni rek euh, bëgg nga lu baax rek mën nga ñëw daal di seet ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy association bi nga xamante ni mooy guuba wax dëgg ne yàlla di def liggéey bu am solo waaye tamit euh, comme nga di tibbee di gërëm xamante ni tey ñoom ñooy grand Ndiaye grand ki nga xamante ni tey moom mooy Ibrahima Ndiagane ndax saa su nekk rek dañuy faral ci li nga xamante ni tey mooy programme si kon tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mboolam ki nga xamante ni tey mu ngi ci association boobu di nga xamante ni tey moom mooy guuba waaye tamit di jaajëfal mboolam gambiens bi nga xamante ni tey yaa ngi travailler pour def dara pour xool naka la réew mi di demee kanam waaye tamit di jaajëfal mboolam ki nga xamante ni tamit ah, mu ngi ci diaspora bi tamit di xool naka la réew di a jëm kanam say ni tey moom mooy programme bi nga xamante ni tey ñu nga ngay ñaax tamit say mbokk éleveur ñu tàggatoo loolu waaw xanaa joxe kàddu ngir mande rek di sant di gërëm Baobab TV mm-hmm. nekk nañ ñi nga xam ne si suñ biir la mm-hmm. bokk si association bi waaye doon ñi nga xam ne ngeen béy seen waar di fësal liggéey bi mhm. bi liggéey bu nekk tey taskati xibaar yi dañ ci am rôle bu bëri mhm. te Baobab TV tey si wàllu livestock wàllu élevage yaram jur gi mhm. ñu see béy seen waar bu baax a baax a baax lu may wax nit rek mooy ne àdduna dara xëyu sotti lu nekk rek ndank-ndank la lu am solo mooy gëm bi ak teg ko ci xam ngir da ngaa ne diina islam moo gën a naqaree taxawal ñeenti nit ñoo taxawal gannaaw yónnante bi Xadijatu la suñ borom soppa si lañ nekka mhm. kon incha allahu rabi gëm nañ ne fuñ ko war a yóbbu nañ ko fa yóbbu mhm. xanaa di taalal suñ loxo di ñaan yàlla buur bi mhm. moom moo mun lépp ñun dañooy jéem waaye moom mooy mottali ñaan ko mu dimbale ñu mottali ñu ba éene bu am si a neen gërëm neen suñ président bi di Moustapha Dione bi nga xam ne tey moo jiite Guuba di sant di gërëm suñ exécutif bi di sant di gërëm suñ membres yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo fi association a a wax dëgg neex yàlla ñu ngi koy def kon Gambia euh, lépp li nga xamante ni tey euh, am na fi tey rek euh, ndaw ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo koy jéem waaye sunuy broda ñu ngi fi waaye sunuy sunuy sunuy papa sax ñu ngi fi kon ñooñu noonu lan moo war a mën a tax tey ba nit ñi war a ñoo jóg ànd ak ñoom booloo di liggéey ak ñoom ci li nga xamante ni tey mooy luy jëmale réew mi kanam jaa ngeen jëf gàcce ngalaama jërë ngeen jëf ñi laa leen ne Baobab TV la lépp li nga xamante ni tey dem na si wàllu élevage incha allahu rabi suba defee rek dinañ daal di génneel wan leen ko pour ngeen mën koo gis nee daal ne ne télé bi mooy télé bi nga xamante ni tey moo ñëwoon pour mottali lépp li nga xamante ni tey mooy seen i yaakaar kon gars yi topp leen ma rek si yeneen i programme yi nga xamante ni tey dem na si wàllu élevage ak li nga xamante ni tey mooy wàllu laadum gars yi laadum du fo du ay caaxaan dugg leen man dinaa dugg jaa ngeen jëf